dañ doon jàng xeeti baat yi mm-hmm. jàngal nañ la lismu mm-hmm. ñu jàngal la fi'l mm-hmm. ñu jàngal la harf baat nag benn dañ naa lismu la mbaa ñu ne fi'lu la mbaa ñu ne la kon kay baat moom pare nañ ceeg yow waaye liñ bëgg a dem nag mooy baat yi niñ cee lëggéeyee loolu ñu naan al i'raab mooy ni ñoo lëggéeyee baat ba ba di ne nii lañ war a jàngee ci catam wala ne baabul i'raab yi lii mooy bunta biral la i'raab buntu bi daf lay jàngal li ñuy wax i'raab mu mm-hmm. ne al i'raabu i'raab mm-hmm. woo moom i'raab mm-hmm. taxyir awaaxiril kalimi mooy soppi mbiri mujibaat yi li ixtilaafin awaamili ngir wuutuwaanteeg way liggéey ak daaxilati la way tabbi alayha ci baat yi arab buñ ko waxee mooy ni ngay bañ a tëqalee baat menn mbir ndég sàmmuhante yi liggéey ci baat bi da ci wuutuwante comme baatu saydun daal ki daal rek lay do kon nekkul ne mujj gi nga soppi waaye daal gi tëqoowut menn mbir ay jamono nga ne dun comme bi nga ne jaa saydun ay jamono nga ne dan mm. comme ne raaytu saydan mm. ay jamono nga ne jin comme boo ne maratu bi saydin mm. wala hada kitaabu saydin noonu ngay soppee mbiram daal gi ndég de sàmmohante gi de lëggéey ci baat bi mooy ixaar tey ba ngay wax dun jaa kim àndal moo bëgg ñu ne saydun bi ngay wax dan raaytu kim àndal moo bëgg ñu ne saydan bi ngay wax din baa kim ànda ñu bi saydin moo bëgg ñu ne din nun ngay bañ a tëqalee baat mel ni mbir hmm. ndig sàmm hante gi ci wuutu hante hmm. te bokkuñ nu seen liggéey war a feeñee hmm. mooy i'raab al i'raabu li i'raab huwa moom kalimi mooy soppi mbiri mujj baat yi mm-hmm. taxir ahwaal awaaxiril kalimi mm-hmm. mooy mujj ak baat ni nga koy bañ a sottalee menn mbir yaxtilaafin mm-hmm. awaamil ngir huutuwaanteeg way liggéey yi ak daaxilati da way tàbbi xaleexaa ci baat yi ndég yi ànd ak baat bi da ci liggéey te bokkuñu seen liggéey war a feeñee nga def sàmmuwaanteeg ñoom laftan dana ma ci jublu gis mm-hmm. ñàkk a taqale menn mbir googu mm-hmm. mën naa doon luy feeñ ci jàng comme baatu Seydun dun ak dan ak din mm-hmm. lenn ci bokk leen sa morom te day feeñ ci jàng aw taqdiran wala ci nattale muy lu ñuy bàyyi xel rek duñ koy feeñal ci jàng al Mustafa fu a dikk mm-hmm. al Mustafa rek la wa wax mm-hmm. baatu al Fata mm-hmm. fu a dikk Fata rek la ñuy wax gis nga saydun fa mu dikkoon ba tax al Fata mën na faa nga ne jaa al Fata na waxe woon jaa jaa saydun saydun fa mu dikkoon ñu ne al Fata mën na faa nga ne raayatul Fata ni waxe woon raayatul saydan Seydun fi mu dikkoon Fata ñu ne Seydin. Mm-hmm. alfata mën na faa dikk. Mm-hmm. nga ne marastu bil fata. Mm-hmm. ni ngay waxee bi Seydin. su ko defee dañuy xam ne alfata lii ba ci mujj. te lii xëcc rek la man. subaa duñ def maska. waaye nag bu boobaa fa Seydun fañ doon waxee Seydun. bu fa alfata demee. liif gi maska lonk lañ koy nattalee. gis ne moo ci waroon a ne fa ji manda rek. foog daan waxee Seydan. su fa alfata demee hmm. lim bi maska xeet lañ koy nattaleel hmm. ndax moo ci a ne hmm. dañ ko ci mën da jàng rek ba nga daan waxee sayidin su fa alfata demee lim bi maska suuf lañ koy nattaleel ndax moo ci waroon a nekk dañ ko mën alfata da ngay nattale maska ak ci lim gi na nga feeñale woon lonk ci daal ak sayidun boo hmm. ne hmm. hmm. raayatul fata da nga nattale maska geeg ci liir gi na nga feeñ na nga feeñale maska gi boo ne bil fata da nga nattale maska suuf ci suuf ci gi bañ gi nga bañ a nattale menn mbir ndi sax mu gi baat bii àndat te bokkuñu seen liggéeyin da demee loolu itam ci enrab lay doon mu ne mooy nga bañ a tëqale baat menn mbir ndax sa mu hante ngay liggéey ca baat ba mm-hmm. te bokkuñ mu seen liggéey war a feeñee ca ketal baat ba mm-hmm. ñàkk a settale gi menn mbir nag mm-hmm. mën naa xamee ci jàng da ngay jàng masque gi tey benn yoon nga jàng gële benn yoon nga jàng geneen mën naa bañ a xamee ci jàng waaye da ngay nattale lii tey bu ëllëgee nga nattale lële bu beneen nga nattale leneen yëpp ihraab al ihraabul ihraab وهو اللي عرف الكريم أواخر الكلم موظف في مري مجيبادي لاختلاف العوامل جرهوت توان تقوي لجي الداخلة لوي تبدي عليها اعتباري لفظا دلم الجوجس أو تقديرا ولا ناسالي سوف إعراب باب خبري مبتدا من سياسة فعلا نسلم هذا haa harfu tanbiih la mm. saa ismul isarati la tey junju genn góor tey junju mm. genn góor ibnaa ko ci sukkoor mu nekkee barabu rafaa tey mubtada al isaara mooy joxañ saa bi joxañ lay firi dañuy joxañ kenn ku xam ne góor la saa la ñuy jëfandikoo saa ismul isarati la tey junju genn góor ibnaa ko ci sukkoor mu nekkee barabu rafaa tey mubtada baabu mooy xabaram mm. xabar rafaani ku mubtada maa dangaa xam laa muy fay tamit. te mudaaf al i'raab mudaafun ilayhi la. mudaafun ilayhi dañ koy jaar. maa dangaam jaram. kasra gi fay tamit. al i'raabu moom ak al kalaamu benn la. aywa i'raab ko. al i'raabu. mubtada. waaw. waaw. waaw. wa damir muttasil. wa damir buy diggale mubtada xabar la. wa damir buy diggale mubtada xabar la. ñu ko i'raab dara ci gën a taayiru mooy xabar li arab taayiru mooy xabar li arab xabar fa ni ko mu kuda lam man ga fa lam sen mu da te mu da te mu da a wax mu da li ni ko ja man ga ndam ko ko ben mu mu da al kalim mu da al kalim mu da li ni ko ja man ga ndam ko ko ben mu man la ha bu da man lam hara lam hara bu da jalla laam arabu lay jar. ixtilaaf jar nañ ko laam. laam arabu lay jar ixtilaaf jar nañ ko laam. Hmm. man na ngaa dem kàddu gi. te mu daaf alawaamini mu daaf ilayhi la. te mu daaf alawaamini mu daaf ilayhi. Ah. mu daaf ilayhi dañ koy jar. Hmm. man na ngaa dem kàddu gi. addaxilati naat la ci awaamini. addaxilati naat la ci awaamini. Hmm. naat lañ jar dañ koy jar. man na ngaa dem kàddu gi. ala arabu jar la. ala arabu lay jar la. ala yóbbu naa ko ci sukkoon. ala arabu lay jar la. dinaa ko. alaañu dinaa ko gis. alaañu dinaa alaañu dinaa ko suutoon. mu nekkee barabu jaar. mu nekkee barabu jaar. jaar jéeg ma juróoli. jaar jéeg ma juróoli. ay ci daaxil. ay ci daaxil. mais lax dan ma xool mu lax la ci fi mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. xam ne buñ saa safee. مثلا أعني لكن مفهوم المطلق التي في عمل بين فاسدة مثلا أعني أعني في عمل المضارع فإن كان رفع ما تقول عمل المدينة التي جاءت لغة بيس ne ko ne anam juba mm-hmm. muy fanweer mm-hmm. ndax dan mooy mafon la mm-hmm. mafon dañ koy nasab man da gam doon fataay waaw ndax dan mafon la mu lax la fi'lu buñ saafase naka leen aani nga jël aani aani fi'lu mudaari la dañ koy rafa maatagaan la mu gi nat le jiyaa gi lu ko tee fañ diif ne mën a ana muy faañ la ndax fan mooy ma xoola dañ ko nata maatagaan soom fata gi aywa aw xarakwaatin la taqdiran rek nañ ko ci lafdan lu ñu def ci lu ñu nasab dañ koy nasab mm-hmm. maatagaan nasabam fata gi mm-hmm. kon ñu jàng loolu mm-hmm.